ñun ak ñaar ñii muy ñaar ñan di sunu ay wasila parce que tey boo xoolee Serigne Babacar Sy la ak Cheikh Madou Bamba. allahu akbar kii moo di dof. Cheikh Madou Bamba moo di loo taalibe Serigne Babacar Sy la waaye nag. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim. bokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ginnaaw bu ma santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. feddali sama yaakaar ci seexuna ahmadul xadim maa ngi nuyu bokki àdduna bi yépp di yëkkati kàddu yoo xam ne kàddu yu tontu walla boog avertise lenn ci ndawi saytaane yi la moo tax ma jiital samay wax auzu billahi min asheytaani rajim muy koo xam ne ba mu juddoo ci ndey ak ci baay ba fi mu ne masee su koo xam ci lenn lu dul am po te sun borom subhaanahu wa taala waxal boppam ne afa xasibtumoo annamaa xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la tarjaxuun po dafa bon ba noppi yàlla bañ am po te bañ koy fo ku ñuy wax mbay jéy fay wala mbay géey fay xuma nu mu ci tudd amut lenn lenn lu mu mën a wax ci àdduna ak melokaan wi ko yàlla bindee lu dut mu fekk ay caaxaan yoo xam ne mosu caa dégg Cheikhuna Ahmed Bamba mosu ko caa gis mos sa dégg kenn ku nekkal sëñ tubaa te nekk ngay dëgg mu dégg la ca loola muy wax ci làmb joo xam ne xamuñ kenn ña koy làmb danañ daj daraam déet wala duñ ko daj wala luñ mën a dajit du loo xam ne diina gërëm na ko mu naan combat bi sëriñ tubaa ak sëñ Babacar si ñoo koy bëree sëriñ Sylla ak Cheikh Ahmadou Bamba allahu di way juru Serigne Babacar Sy sëñ Babacar Sy di nitug diine jur ak njaboot Seexuna Ahmadul Xadim di yaakaar yi murit yu bari mu am fitu taxaw ci ojo di wax ne komba bi nii la maa ngi koy xamal ne tooñ na sëñ Tuubaa waaye tooñ nañu ñun murit yi te man ak képp koo xam ne maak yow ñoo bokk pas-pas maa ngi lay tàllal loxo ne wax jooju nañu ko jéem a saafara ndax kat yomb na lool ci sëriñ Tuubaa di suñu yaakaar gàddul ñu àdduna ju jàkk ak alaaxira ju jag ñuy bàyyi nituk caaxaan gu jóg foyee sëñ Tuubaa te boo ko nee mu ne maa ngi koy tuub yomb na lool ndax kat alxuraan sax sunu borom subhaanahu wa taala nee na summa amanoo summa kafaro summa asdaadoo kufran lam yakunillaahu li yaxfira lahum bu la neexee tey nga dëggal bu ëllëgee nga weddi su ëllëgee nga dëggalaat su ëllëgee nga weddi day waral bu ëllëgee boo tuubee yàlla du la jéggal te tooñ gaa ngi bëgg a miti mi ngi bëgg a jéggi dayoo kon nag képp koo xam ne maa yow ñoo bokk pas-pas Sëriñ Tuubaa ñor na la man de mënoon na ma wax ci diggante ñaari tarixa yëpp ku ne ma waxal la waaye ginnaaw yàlla dogal na sama gétt mooy si Ahmed Bamba donte sëñ Tuubaa noona fa kullu wirdin yuridil murida li hadratillahi walan yahida sawau intama ilal jilaani aw intama li ahmad tijaani aw li si waaxuma min al aqtaabi ndagam sëñ Tuubaa waxoon na loolu tarixa yëpp mën nañoo doon benn mën na si naa doon wax ci seen kaddu waaye nag bay wu ne am na gétt gétt ga muy yeewe sa la wax maa ngi wax ci turu sëñ Touba Xaadimu Rasuul di lancé appel bépp murit ne Mbaye Gueye tooñ na sëñ tubaa waaye tooñ nañu ñun murit yi nuñ ko mën a saafaraa nag war nañ koo saafara wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kii moo di dof.